ñu lay tàllal loxo bu baax a baax di la dalal jàmbut ci biir parti bii nga xam ne fi nga dugg mu nekk naam parti bu nga xam ne bariwul ay at waaye mu nekk parti bu nga xam ne tey ràññee nañ ko ci biir espace politique bi mu nekk parti bu nga xam ne tey département boo dem commune boo dem yaa ngi fa fekk ay représentants ñu taxaw moom taxawaay bi nga xam ne war na koo am ci biir ci biir askan bi mais nga ñëw ci jamono bu nga xam ne Marème jamono waajal élection locale la te élection locale yi ñu jëm dafa am enjeu dafa am solo dafa nekk élection yu nga xam ne ñëpp ñu ngi ci teg seeni i gët dafa nekk élection yu nga xam ne observateur yëpp ñu ngi xool nan la war a tëdd ak nan la war a demee ci jamono boobu ci nga tànn pour ñëw suñu wet moo tax dama may ma profité ci pour ñaax la ñaax leen ngeen yokk seen doxin ci mbindu mi ci wàllu liste électorale yi jamono jii la ñu toll pour bindu jamono jii seet leen ñi nga xam ne seeni carte d'identité def ñu mënuñu woon voté ngeen fexe ba ñu voté ñi nga xam ne dëkkuñu woon Dalifort bëgg faa ñëw voté si ngeen fexe ba ñu mën a bindu ñi nga xam ne tamit ay primo votant lañu ngeen fexe ba ñu mën a bindu loolu jàpp naa ne mooy mooy liggéey donc maa ngi leen di ñaax mais di ñaax aussi waa bennoo Bokk Yaakaar yëpp waa coalition majorité présidentielle yépp bu gars yi di wax ak di discours nuñ nañ nekk ci li am solo li am solo mooy nañu ñaax suñu militants yi ñu dem bindu nañu ñaax suñu responsable yi ñu encadrer militants yi ñu dem bindu parce que élection yi léegi lañ leen di gagné kenn du xaar ba bis ba ngay soog gagné bis bi ñuy bindoo jamono bi ñuy bindoo foofu ngay góor góorloo bind ñi nga war a bind liggéey li nga war a liggéey bañ ko boolee ak wax encadrer militants yi ñu bindu janvier bu ñëwee ñu waat suñu bopp wane wanewaat suñu doole ci ginnaaw président Macky Sall mi nga xam ne moo jiite la coalition présidentielle moo jiite aussi Benno Bokk Yaakaar te bu ñu kenn détourné ci wax jooj ci loolu coow yu sew yi amaat yëpp gars yi dañ koy def surtout opposition bi bëgg rek ñun ñu fàtte li essentiel mooy liggéey bi nañu liggéey dans la discrétion liggéey dans l'efficacité te bañ ci boole coow bind nit ñi su élection yi ñëwee ñu gagné ko proprement fenn fu nekk ñu teg fa maire bu nga xam ne dana nekk à l'écoute des maire bu nga xam ne dana xam luy soxlay population yi maire bu nga xam ne lam man dina ko def pour jàppale population yi kon gëm naa ne Dalifort pour delsi ci sama sœur agsi nga fi nga waroon accès ñun nag daañu la boot daañ la rogganti ndax suñu mbootu nag yaatu na te dëgër la te incha allah daañu la boot daañu la rogganti ba yéene bi nga am ci Dalifort yéene bi nga am ci Sénégal parce que bul jël rek sa bët ak sa potentiel nga bëgg ko yemale ci Dalifort sa bët ak sa potentiel yéegale ko fu ëpp Dalifort yéegale ko fu ëpp département Pikine yéegale ko sur le plan national yéegale ko pourquoi pas même sur le plan international parce que tamit potentiel soo ko amee danga koy bàyyi mu éclore donc maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant choix bi nga def doo ko rëccu gëm naa ne aussi ni ma misé ci yow duma ko rëccu continuer leen di ko jàppale ngeen dem ci mag ñi dem ci xale yi dem ci ndaw ñi waxtaan ak ñoom gën a yaatal yeesal ci biir Sénégal gën a yaatal yeesal ci biir département Pikine gën a yaatal yeesal ci biir commune u Dalifort